waaw 104e euh, place comme ni nga ko waxee maanaam dellu nañu ginnaaw dellu te ginnaaw boobu ñàkk nañu fanweeri poñ ak benn et que loolu du la bett boo dégloo lu suma trondo Abdoulaye boobu wax sànq euh, dëxëñ na ko euh, nee na donc tableau bi tey fii daanaka boo ko xoolee dellu ginnaaw bi. Euh, daanaka fii ci Sénégal man parce que ku yàgg yëngatu ci mbirum liberté publique yi la ah. mhm. euh, mbirum euh, liberté de la presse ba ñuy xeex donc Yaya Jammeh ñu ak ñoom Amnesty ak yeneen i kuréel ci àdduna bi yàgg nañ ko saytu di taxawu ay nit yi nga xam ne dañu leen yóbbu kaso parce que tout simplement dañu def seen liggéey mhm. daanaka boo jëlee ci kuréel yi nga xam ne ñoo ëmb mbootaayu xeet yi nekk Afrique de l'Ouest Afrique soowu jant daanaka Sénégal rek temps yi ngay dégg depuis quelques at nit dem kaso parce que day def liggéeyam euh, wax na ko sànq euh, tey li ci gën a yéeme moom mooy euh, ñooñu tuuba yi nga xam ne moom la ñuy jël di ko teg ci seen ndodd du dara lenn li nga xam ne nekkul li nga xam ne jar na seet wala daanaka bu ñu leen woowee ñu wuyu bu ñu waxee tontu rek maanaam mbir mi jeex na mën nañu jaar wala la plupart du temps présentation mais lu ñu leen di jàpp du dara lu dul xoqatal leen xoqatal bi nag mhm. euh, nekkul sax ñoom maanaam euh, xam nga temps yi nga xam ne démocratie amul mhm. euh, buur bu demoon ba jaaxle lu mu gën a perte autorité mu jéem a affirmer autorité et que day jël kenn rek yóbbu ko ci guy gi dagg bopp bi bu defee noonu ñëpp tiit loolu la ñuy jéem a véhiculer d'une certaine manière mhm. mais ci yeneen i anam maanaam bu ñu jëlee nit tey Euh, mën nañu mënuñu wax tey liberté de la presse journée bi sans avoir une pensée effectivement comme nu ko waxee Babacar Touré. mi nga xam ne dañu ko xam naa ko yàgg naa. Euh, donc liggéey ak moom ci yenn question yi mu nekk aussi ku farlu ku takku ci mbirum justice ci mbirum en tout cas euh, défendre ay nit yi nga xam ne ñu ngi ci ay loxo justice depuis Paris ah. donc muy aussi Pape Ndiaye mi nga xam ne seen naataango Walf ma yàgg a taxaw ak moom ci ay rencontre internationale yi nga xam ne dañ koy organiser ci mbirum ñooñu tey. paradoxalement <laughs> ñoom ñoo nekk kaso d'une certaine manière ñi nga xam ne yàgg nañu saytu di wax ci mbirum justice donc finalement tey ci tënk maanaam fii Sénégal tollu dañu fexe dañuy fexe ba xoqatal journaliste yi xoqatal journaliste bi moom mooy lan mooy yóbbu leen ngeen def autocensure autocensure bi moom mooy lan wax nga ko sànq maanaam dañuy ñëw joxe ay exemple tiital leen ba ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk wala yu sës ak yéen dañuy def pression de manière inconsciente da ngeen di tënk seen bopp. loolu tey moo tax ma leen di ñaax. bu leen ragal bu leen tiit. te war waruñu tënk seen bopp. non waruñu tënk seen bopp parce que tey fu àdduna toll. Euh, dama jàpp ni sax fii Sénégal dañu war a soppi mbir mi. gis nga Pape Alé dem na fii détention préventive d'une certaine manière wala provisoire mais euh, la plupart des démocraties Sénégal war nañ ko am dañu war a am benn loi sur le droit à l'accès à l'information d'une certaine ñëw euh, jiñ la ay tuuba opposer le secret défense euh, ni euh, ni muut jàpp seen tekk mbir mi yem foofu d'une certaine manière donc lu ñu war a soppi fii Sénégal dafa bëri moom mooy lan dépénalisation des délits de presse tey Sénégal loi yi ñuy invoqué yépp nii ci code pénal France bi leen nekkoon notamment la loi de 1881 sur la liberté de la presse mais ci mën na jàpp juróom fukki at yi passé mhm. daanaka tribunaux francais yi ñoom mosuñu sax condamné ay peines privatives ndaam nekkoon na ci euh, ci texte yi mënoon nañ ko def ñoom dañu doon xool xam ne ñi la ñuy liggéey ci seen liggéey la ñu nekk nu avocat nekkee ci liggéeyam nu juge ba nga xam ne moo taxaw nekkee ci liggéeyam donc mosoo dégg benn juge bu dem kaso parce que dafa rendre jugement d'une certaine manière donc ñooñu tey bu amoon benn faute maanaam tribunal des pairs mën na jooyanti mbir mi mhm. mais tey fii ci Sénégal dañu war a dépénaliser ba ñu def